def ñu ngi wax lii dama la bëggoon wax ne seen invité boobu ngeen invité Sénégal la nekk gor su nekk gor la góor du loo sekk ak nit toog ci télé bi du ko wax góor du loo defal doomu aadama ba toog ci télé bi di ko wax Adji Sarr bu ko mayoon cent franc amul droit toog ci tele bi di ko wax eu égard à tout ce qu'elle vit gis nga li mu toog foofu di wax du ma ko ci tontu du ma ko ci wax waaye Khaliphone sàll xaayee su ko laawul loolu la Haalpulaar wax li ci kanam rawuli bët te li ci kanam mi ngi ñëw mi ngi ñëw lenn rek laa koy ñaan gis nga nit booy wax dara da teg say preuve booy wax dara ba sàngam diw sàngam heure sàngam da ngay teg ay preuve mm. li mu wax foofu lépp Gabriel nii Gabriel nii Gabriel nii Kalifone Sall ngaangal ma wadd man ko mi tooroodu cent pour cent yu mum bàmmu dama bëgg nga déglu ma bu baax yaa ngi wax di tëb di dal léeg nga ne duma wax turam léeg-léeg nga gaarawaale Kalifone Sall boo nekkee góor lépp loo yoroon ci preuve te bu fekkee dëgg moo la tax a jóg moo tax a jóg ñëpp ci réew mi preuve boo yor tegal ci table bi Sénégal yëpp atte ñu ndax man ragalu ma diiru ma dallu ma muy yow muy Adji Sarr muy Françoise Hélène ma ne jigéen ñi nga xamante ne mooy Adji Sarr tey li muy dund métti na métti goo xamante ne elle besoin de silence ku ko soutenirul soxlawul ngay toog ci plateau télé yeeg live yi di xàññi gërëm boo ko jox ak soutien boo ko def fii ay nit defal nañu nit lu ëpp gis nga ay góor may nañ fi ay jigéen million te dóoruñu leen yow vingt cinq mille ba réew mi yëpp. yow yow mi yow mii dinaa na ngay soutenir nit di ba nit mu fàq Gabriel loo séntu si Adji Sarr. bu ne suba la remaniement ministériel Adji Sarr quatre heures du matin fàqul. sa digganteeg sa borom sa yow jullit nga sa digganteeg sa alxuraanul karim quatre heures du matin Adji Sarr fàqul daw dem sa kër ba boole la sa yaay ba ngeen jël ko yóbbu ko sali gab keroog Adji Sarr VIP woo woo ma ne ma aji waxal ak moom démb guddi agent VIP la doon xeexal lu waral xeex yi gis naa nga def benn sorte da nga doon fekk aji toog di bëgg xaru lan xaru nga ne lan da nga koy toroxal non lan waxaatal da nga toroxal waaw da ngay dem yi day dem sama kër yaay di ko wax sama yaay man bien sûr aji ba mu fàqee ba mu fàqee keroog sa kër yaay la dem demul fenn fu dul sa kër yaay fale Cambérène 2 sa kër da ngeen may wax lu ma dama ne Adji Sarr personnel moo nekk appartement Gabriel appartement Gabriel dëkkul ak yaayam mais il faut tamit ngeen wax Adji mu fàqee keroog quatre heures du matin lu tax Adji di fàq fii la toog lu nekk la wax ci plateau bi sànq ba tey ñëpp di ma ko wax tontu ma day noppi déglu ma tontu ko loolu mooy nit na ñoo xam ne xelu jën lañu yor day noppi déglu. yow de yaa yor xelu xelu xelu béy yaa yor yaa yor xelu béy yow yaa yor xelu béy parce que boo yoroon xelu béy doo ma enregistré di ko teg ci toile bi. ci dëkk bi ay góor ko jigéen te coow góor yu gore. góor yu baax même góor gu yëkk vingt cinq mille tax nga toj kanamu jigéen war nañ koo seetaat góor goo xam ne may naa diw cent mille may naa diw cinquante mille war nañ koo seetaat bisu ngoone waruñu seetaat waruñu seetaat kuy enregistré wu si xale bu torox xippi jaru ko yuuxu jaru ko c'est pas parce qu'on crie que xam nga nit kuy kuy yuuxu di wax jarul wax parce man ku xam-xam ne wax dëgg yàlla am na loo xamante du ma ci daw du ma ci di dafa am loo xamante ne ni classe la classe kan moom classe yow yow yaa am classe wax nga di wa ngi wax dama tapé google bu yow yaa am classe ku am classe mel ni yow euh, diw lu mu def ci réew mi ak diw lu mu liggéey réew mi loolu la nit ñi di lijjanti instant bi nit ñi tal na xalaatoo di attaqué xale boo yow de doo yaayu Adji Sarr bu dépendroon si yow dee na boo jàppee di ko dóor di ko toroxal jouru tabaski ba léegi lekkul yàpp yaa bon tabaski ma ne ah, tabaski jouru tabaski aji lekkul yàpp ba léegi yaa ma ne man maa soxlul nga wax ma li may taxawoo doo dara doo dara doo dara doomu jàmbur aji musuma ko tooñ li mu dugg yëpp yaa ko si dugal non bu ko parce que Maître El Hadji Diouf toog na si télé bi Maître El Hadji Diouf toog na si télé bi wax na si moom mi Françoise Hélène Gaye toog na si moom mi kon ku ñëpp tuf nga tooy